jaajëfal si teewlu seen émission face to face dellu si ñu ngi fi nga xam ne mooy Wakaam Wakaam nag suñu gan mooy Serigne Modou Bousso Dieng ngeen xam ko bu baax si langano politique bi kilifa dina jiite kuréel bu ëmb jeune jeune Maobo chef de parti la également ndax itamit am na parti boppam ñu tudd su ma juumalee ci <laughs> intitulé bi union des des patriotes euh, de Touba après dina ma ko leeralal xam naa ñàkkul ma am ci fu ma ci gagee donc kooku mooy sunu invité euh, tey ñu fa yéene waxtaan ak moom nag euh, ci yëngu-yëngu réew mi laaj ko ci xalaatam amin tamit ay pomp yoo xam ne ñu koy xaar si moom ñu nii taxaw ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo ci yéen. sëñ bi ñu ngi leen ñu gën a jaajëfal ci li ñu dalalee euh, ci sa biir kër ñu bàyyi la ñu ko askan wi lay seetaan. Ah. xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim xamitu ma yazimu nii min ad-darar min kulli shaytan wa min bashar bëgg naa trop ci dalal la bii mooy yoon yu bëri ma lay dalal di la sant bu baax ci liggéey bu rafet waaw ñu am si mbégte bu bu yaatu nag euh, donc xanaa lu ñu def rek euh, mooy euh, amul taxaw ndaxte waa place du souvenir ñu ngi ñuy xaar <laughs> te dafa naa ne bërëb la boo xam ne ña fay ña ko jitawoo bëri na Euh, mooy suñu partenaire stratégique ci bi émission bi euh, tey man maa lay dalal foofu ndax d'habitude invité bi moo ñuy yóbbu mais comme yow Touba nga dëkk tey ñu ñoo la indi yóbbu la foofu place Souvenir yaakaar naa ni dina méngoog yow ndaxte euh, Afrique lañ fay naataal. waaw def naa daamar gaa nekk nii. Mhm. ñu dugg. <laughs> macha allah euh, di jëm nag euh, euh, fi nga xam ne kon mooy place du souvenir donc ñu ñu ñu door rek nag émission bi Ibou Diouf ñëwoon na ànd ak Jatu Ndiaye keroog sa kër rëdd sa portrait ma tegal la ko nga xool ndax jaar na yoon wala. suñu ganu tey jii Serigne Modou Bousso Dieng lay wuyoo. Serigne Modou Bousso Dieng. waaw ah, citoyen sénégalais bu juddoo Touba màggee Touba dëkk Touba. moom mi lay ne ku jege njabootu Serigne Touba la. sëñ Massamba Mbacké mooy suma mooy suma maam suma yaay doomu sëñ Modou Fati xarit la bu sëñ Massamba Mbacké. sam papa aussi nekk euh, cheikh bu sëñ Fallou cheikh ginnaaw bu mu ko liggéeyalee 40 ans. moom mi ne ku fonk njabootu sëriñ Touba la. sëñ Xaadim am naa sëñ Touba am naa cheikhul Xaadim am na sëñ Touba ñu koy woowee Mariama Boussa mooy waajur sëñ Touba mooy bu jigéen bi. Serigne Modou Bousso Dieng ku sàkku xam-xam la. Daara alxuraan laa jàng après Daara jàng majalis comme ni ñu koy def ci kër yi ci kër yi diine yëpp jeexal dem Arabie Saoudite pour pour pour pour aterminer foofu daal mosulu diit. moom mi la Serigne bu yëngu ci wàllu politique la. politique lu lu noble la. mais ki koy def nag ci moom la dépendre soit moom mu noble. politique bi muy def noob soit moom noobulul li muy def bañ a noob. waaw ndax sëriñ war naa def politique. waaw mais bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy imaamu saalihin mais oui bien sûr may chef de parti may politique ba ci digg ba. lan mooy sa métier. profession bi ma doon ci sama yaay ak sama papa mooy nekk sëriñu tariyaax di faj ak di. di fajal ñenn ñi seen aajo ci asraar. ban at nga soobu ci langue politique. ñàgg na bi suma turandoo waxoon ne nañ jàppale Abdou Diouf. lan la Serigne Modou Bousso Dieng tànn ci yoonu politique. religieux d' abord parce que avant libéralisme avant socialisme avant leneen lu mu mën a doon fekk na l'islam définir naka la ñuy dundee ba pare ba pare noppi naka la ñuy dundee loolu mooy politique. Serigne Bile amul jafe-jafe ngir wax xalaatam. ah déedéet man Dieng laa sant du ma war du ma fen lu ma g mu wax pare ñaar la. am naa benn soxna <laughs> bëgg ñaareel. Hmm. lan la sëriñ bi di faral di moytu. fen ak wor. lan mooy féexal xolu sëriñ Modou Bousso Dieng. su may déglu xasaayit dina ma neex trop. ma xam su ma waaja buy wax digganteem ak yàlla. kan mooy sa royukaay. sëriñ Touba rek moom laa tuddee suma doom yëpp. noo gisee sëriñ Modou Bousso Dieng ci boppam. du may xool suma bopp. ban kilifa nga ëpp loo jokkool ci téléphone. <laughs> ñëpp maay xaritu ñëpp de. pouvoir opposition yi ci digg bi yëpp rek bariwu may noonu de. lan mooy sa plat préféré. ceebu jën su ma ko amee rek baax na. lan la Serigne Modou Bousso Dieng yéene Sénégal. jàmm jàmm jàmm. alhamdulilah euh, for ci nga ni euh, amoon noonu yaay xaytu ñëpp pouvoir opposition ñëpp ngay waxtaan loolu mën na nekk mën nga nekk xaytu ñëpp. Hmm, léegi opposition kan moo si gën a nekk sa xarit. Bougui position bi kër ku ne laay dem. comme ma demee kër euh, Abdoulaye Wade ànd ak Madické Niang. Mm-hmm. da ngay def ne fa laa dëkk. Mm-hmm. su ma demee Saalu Idriss Seck dama koy occupé ba pare. Mm-hmm. keneen soo ko dugg. donc extra euh, dama jël rek ñaar yi gën a nekk mais tout le monde. donc. Euh, samay xarit lañ ñoom ñëpp. président Macky Sall nag bien sûr bien sûr. bien sûr du ma fa dem sax gu ñu dem fa mais suma xarit la de suma xarit la euh, comme ni ñëpp comme ni ñëpp nekk suma xarit dinañ dinañ dinañ di wax. ak yeneen ak yeneen. mais yéen ñaar toog bu leen. toog euh, du may insister ci toog ak président Sall même suma toogul lax moom it. war naa toog parce que vi statut bi am si si si Sénégal en tant que président des jeunes religieux mais aussi en tant que président bu am confédération internationale des familles religieuses reconnue internationalement sama interlocuteur naturel ci Sénégal Macky Sall la avant keneen ku man doon parce que ab citoyen la te moom mooy président des citoyens de la République. Mm. Euh, euh, sa parti politique sànq wax naa ci sama présentation ne mi ngi des, des, groupes, des groupes patriotiques. Euh, de, Touba. de Touba. Pas de Touba, ah, léegi euh, keroog ba ñuy euh, tourné sa portrait bi euh, doon naa la ma ne la yow yaa gën a siiw sa parti d'accord nga jël ma. mais c'est vrai. mille loolu. parce que yëngu du sama parti moo ma siiwal du politique moo ma siiwal man dama bokk d'abord ci famille buñ xam ba pare dama bokk ci famille bu populaire ba pare. moo xam ne benn confidence su ma yaay bi ñu koy denc boobu ma am moins de quatre ans nettali nañ ma ne ma ki jëli woon yaayam mu ñëw kër papaam nee na ko yow war nga sant yàlla parce que man mii la fi indi woon avant ngay juddu fekkee sa juddu fekkee sa faatu xam naa ne ko yàlla may nit nga te nit yooyu foo nekk ñoo fa ba tey ci armeel yi mu nekk lu exceptionnel donc euh, boo juddoo ci famille boobu siiw mën na la bañ jafe ci toppit mooy euh, ci diine laa doon yëngu jiite euh, ab mouvement boo xam ne dañ doon revendiquer trop ci wàllu diine hmm. loolu moo ma gënoon siiwal hmm. ba ma dugg ci politique dab ma ci hmm. moo tax kon instrument politique bi man maa koy gën a maa man maa gën a siiw c'est tout à fait normal benn parti politique bi yow benn laa benn militant amuy sëñ Modou euh, lool lool lool xam nga bariwul man lu may wax ci sama bopp lii laa am wala la de mais suñu manifestation yi ñu def yëpp c' est des milliers de personnes donc euh, ku ma xool sax xool sama parti war a xam ne sama parti am na bi biñ commencé élection léegi mosuma perdre Touba jamais ku ma àndal ak yaa gagné Touba. mais mosoo baat campagne. mosuma ñàkk baat campagne hmm. yi. 2012 je l'avais euh, mu ñëwee foofu rek yamul rek ci euh, euh, lenn ci ay seede yoo xam ne ñi la gën a xam ñoo ko wax si yow yëpp nag di participer rek pour askan wi gën a xam que ma ma tegal ko. Malick Pouy. man la Chérif Mballo. Euh, di xarit ci Serigne Modou Bousso Dieng. bii de euh, xaritam laa chauffeuram laa léppam la bu ma ko doon lim fi ba suba moom du jeex waaw wóolu na ma trop tamit wóolu na ma trop sëñ bi compte banque am fi ne nii xamu ko lu mu yor ci xaalis man maa koy denc waaw jox ma ma jox ko waaw. su ma joxoon un milliard ñaari fan ñett mën a ko jeex na it gëm na loolu man rek la wóolu. Abdou sa Dieng depuis léegi mu am ñaar fukki at ñu ngi xamante euh, association bi ñu créé ni membre fondateur laa ci euh, depuis boobu ba léegi li ñu seq mooy jàmm. te li dëgëral sunu relation mooy lislaam ak ngor lépp ci lu muy dugg wala lu gën a bari ci lu muy dugg dina ma woo laaj ma sama xalaat pour ma wax ko ci lu muy def wala mu bàyyi donc loolu marque d'estime la bu mag boo xamante ne bu jóge ci moom ñëw ci man kon loolu defal na ma ko loolu ne may na ma ko moo gis nga montre bii rek sept cent mille lay jar ci li gën a tuuti laa lay wax may na ma oto oto bii vingt la jar dañoo yoroon 406 ba 406 ba dem bii 20 millions la ko jënde moo ma ko may may na ma kër may na ma oto may na ma oto ñaari yoon sama beneen oto bi ma nga fële ci ginnaaw Elton bi ku ma ca fay tey dama la ko jaay waaw ma nga fële sama rakk moo ko yore mu ngi noonu ko fekk na wax dëgg yàlla dañ jàngaar ko dama daan yeewu guddi gis ko mu nekk ci téeréem waaw loolu moom laa ko xamal waaw ku bëgg sëñ Tuubaa la waaw lu ma nee la barke Sëñ Tuubaa ko bor moom dafa am double casquette en tant que marabout mais également homme politique euh, l'islam mosul séparé ñaar yi après la révolution de 189 ci la ñu séparé maanaam pouvoir temporel ak pouvoir spirituel donc ci biir loolu bu jógee def loolu dugg ci politique pour la voix de l'islam la voix de la de des musulmans ak ñeneen ñu mën leen dégg des Sénégalais de manière générale euh, kooku dafa am solo. alors euh, sëñ bi témoignage bi. je suis ému. Mm-hmm. parce que ñaar ñëpp euh, soo déggee seen wax kenn ku ne mu ne def nag man lu ëpp vingt ans. wax mm-hmm. la dëgg mm-hmm. bi. ma njëkkee ñëw Dakar amoon fu dal sama papa bëggul woon ma dem ci këram laa daloon. moom li nga amee otoom am taxeem mu bàyyee ma këram di ma indil añ di ma indil reer dara manqué ko vingt ans niñ woon ba léegi yi yàlla dugal noonu lañ dëkke waat ci même kër yooyu mu wax ne defar na ko jotul wax buñ ma waxul woon ne ma chauffeur moo gën a baax pour témoin ndax moo gën a xam moom daf ma jege ba bugguma sax mu may mu may mu may mu des mooy Chérif Mballo c' est vrai que mouvement ci collectif des jeunes chefs religieux membre fondateur la ci. Mm. c' est un grand intellectuel aussi. il est dans le monde arabe dans le golfe et tout nit ku baax la. Mm-hmm. loolu teraanga rek dañ seq ak ngor ak dëgg mm-hmm. comme ni nga ko ah, euh, euh, euh, ma ma ma ñëw ci lenn loo xam ne. fësul ci sa portrait nee nga yow da ci boole tamit di faj. faj boobu laa bëgg xam ndax loolu Sénégal liñ xamuñu ko si yow yow liñ gën a xam ci yaw mooy ku mën a sànni xeer ak ku mën a euh, def yi ni mel. soo demee Touba. Hmm. xam nga may dégg. Hmm. su may papa su may sama waajur dundul mais ñu mag sama waajur sax ñu ngi dund. Hmm. Euh, su ma yaay ak su ma maam yaa ngi fay dund. li ma wax xam nañ ko bu baax a baax duñ ko weddile. soo fa demoon tamit. Euh, mais ay feebar ak yooyu ngay faj kon. bépp feebar bu dul jaar ci. ci euh, ci appareil mën ko détecté rek rek dama koy faj. Mm-hmm. waaw mais loolu ma ci sori parce que kon dama waroon jaar seen service commercial ba pare. Ah, mais dama mais mais mën naa la may publicité ba ndaxte bii. Euh, <laughs> ndax yow soxla woo publicité. waaw <laughs> soxla woo ko mais loolu moom. peut-être la boo xam ne man looloo dégg nga wax ko sax dama dama dama. am na am na am na am na am na. mais mais mais daan nga faj. am na boo demee kay euh, moom laa jàng moom laa jàng moom laa moom laa exercé euh, kenn du ko dindi li ma wax kenn du ko dindi. mais ay cancer ak yooyu mënoo na si bëgguma ay wax lii laay fa jëg mais daal. <laughs> mais mais daal dinaa faj te maa ngi faj. bëri ah ci laay dund politique dund lu ma de. Ah. maa ngi dund. petit dundu ma. yaa ngi dund moom macha allah. Ah, <laughs> maa sa kër ga. résidence na nga ko tuddee résidence xale ni nga fàtte filmé. Eh, soxna maam Fatima sa ah, ma ci yooyu eh. laa fi gis ñetti état yaa ngi yaa ngi ci chantier macha allah eh. jatuwuma la lii tamit maamar gi tamit Mercedes amu fi naa ko wax même du publicité. kon kon ci loolu nga dund yow. ci loolu laay dund ci laay judd ci laay dund te yor ci yeneen nag. du Dakar rek laa dëkk Touba laa dëkk. Dakar gan naa fi mais nag wut may du may dal ak yu may liggéey su ma ñëwee mais Touba laa dëkk mais maa ngi sant du politique ñu bëri bu ñuy wax ma dama ci tontu. parce que ñun dañuy politique maa ngi sant politique moom pour am man politique ma def may xañ. Mm. parce que chaque fois rek mooy def benn activité politique rek. Mm. sonn naa ci. te mm. am musuma am benn nomination. politique musuma apporter absolument rien. te pourtant. yaa ngi sant waaw. kon nga ay activités annexes yooyu nag. Euh, dinañ ko toj euh, euh, fële ci li ñu euh, madame Ba di Adja Sy directrice su place bi dencal kon ñu wàcc rek àggale ko sëñ bi euh, ñi ngi kon fi nga xam ne mooy euh, musée de la femme Henriette Bathily euh, moom la ñu madame la directrice de la place du souvenir Adja Siba aménageel c'est fait exprès nag parce que ku ne xam na ne mois de mars bi moom ñun jigéen ñi lañ ko jagleel bien que nag mayte nañu lu ëpp weer te te nag di ci ànd ak man. <laughs> <laughs> donc moo tax nag ginnaaw fois rek ba ñu nuyoo euh, euh, euh, képp koo xam ne rek yaa ngi xëy di yaa ngi yeewu di xëy si fii ci place bi ñu lay nuyu di la jaajëfal boo dee jigéen nag ñu sargal la nag ci weer bi nga xam ne moom la ñu àddina jagleel kon sëñ bi ñu ñu xuus rek sans plus tarder ci biir émission bi donc daanaka ba ñu jeexalee li nga xam ne mooy première partie bi aaju nag ci rek gën a la xam ñu dugg nag ci dernière première bi euh, mu nekk euh, actualité actualité bi euh, bi ma ci démarré mooy wan la déjà benn copie de presse boo xam ne daanaka yow itamit yaa fay wax rek la la metti ci conseil constitutionnel nga fa nga doon waxee lii copie de presse la yaa ko doon wax ndax defe naa ne lii lii moo waral lépp moo waral référendum bi conseil constitutionnel bi nga xam ne 15 yu ko président Macky Sall euh, euh, saal woon pour mu joxe ci avis euh, ba mu joxee avis bi da cee moo moo waral ñu supprimer li nga xam ne ni dañ jàpp ne ma doon xoromal référendum ba di rétroactivité mandat bi yow nag argument bi nga bi nga bi nga joxe wute na ñeneen ñi ndax yow da nga ne yow merewoo président Macky Sall conseil constitutionnel nga mere loolu nag laa bëgg tey nga leeralu ko Sénégalais yi position boobu nga am lu ko waral. dama ne. président Sall est un ab njiitu parti la. boo xam ne day politique. même bu dee njiitu réew. Euh, nekk campagne électorale am lu mu diggee. mu nekk un engagement. mu nekkaat président diggewaat ko. mais conseil constitutionnel nekk ab groupe de magistrats. yoo xam ne du. institution la boo xam ne am na tuuti ak wuuteeg institution présidentielle parce que institution présidentielle institution la boo xam ne. Mhm. dafa am politique. dëgg conseil constitutionnel amul politique. Mhm. moom il dit le droit point. Mhm. et rien que le droit. bi boo xoolee évolution wu discours président bi. ak la démarche de son discours di nga gis ne depuis deux ans mu ngi wax ne dina consulter conseil constitutionnel. kon donc war nga xam ne y une responsabilité bu pesée ci conseil constitutionnel te nee na aussi dina suivre indication bi ñu ko jox donc su loolu amee conseil constitutionnel xam ne tout le monde est pour le cinq ans le Sénégal entier est pour le cinq donc mu noppiwaat joxe benn décision boo xam ne si euh, daf ne président supprimer disposition bi nga bëgg a jël parce que boo ko supprimer wul day menacer l'instabilité des institutions. Mmh. Donc, euh, sans pas rendre compte de la volonté populaire, de la volonté de tout le monde que président wàññi mandat bi ci jëlee ko ci juróom ñaari ko mm. juróom loolu man moo nekk sans problème ak conseil constitutionnel. Mm. mais nag euh, euh, gisoo tamit ne euh, sëñ bi conseil constitutionnel tamit boo ko bëggee sëf lépp dina xaw a metti ndax li tax mu xaw a metti mooy. avis la joxe avis nag boo euh, euh, boo koy tekkee ci euh, wolof mooy xalaatam ah, xalaatam la joxe xalaatam bi mu joxe nag wax fa dëgg yàlla neewul kenn wëyal ni ma wax président Macky Sall dégg nga constitutionnaliste yëpp wax ci bu weesoo nag Ismaïla Madior Fall nga xam ne benn ñebbe la ci biir cin ñeneen ñëpp dañ ne président Macky Sall bu ko neexoon passer ailleurs passer ailleurs dégg naa la ngeen wax waaye sama engagement la ma la ma la la ma dikk sénégalais yi euh, euh, doo ko ci taabal bi ci laay woy oui euh, loolu wax nañ ko ne bu nekkoon président mu jaar feneen mais le fait que bu jaarul président mu jaar feneen mm-hmm. te conseil constitutionnel président préféré pour jaar ci moom rek la mm-hmm. conseil constitutionnel devait être beaucoup plus mm-hmm. responsable beaucoup plus euh, gën a bàyyi xel ci askan wi ak parce que parce que droit nekk une solution sociale c'est le principe du droit naturellement kon waroon na bàyyi xel euh, euh, la volonté populaire bi lan la ne Sénégal yi bëgg lan lañ bëgg ak lan mooy nekk solution sociale bi parce que xëy na am na tension yu am yu bëri yoo xam ne bu conseil offriwul woon président Sall opportunité pour que ne ko non seulement que da ko offrir opportunité mais da ko da ko sommé pour ne ko supprimer ko te même décision bi mu génnee tout le monde di que c'est un avis mais en voyant le document décision lañ ci bind yow décision nga ko jàppee yow. non amul lu ma ko jàppee li ñu bind laa wax man xaw ma je ne suis man lenn laa xam ne Macky Sall dafa doon wàññi mandatam de sept ans à cinq ans point. xaw ma leneen. nekkuma ci terme légalité ak dama ne président Sall lii la waxoon lii la war a def loolu la population bi bëgg loolu la war a def mm. mais nag dama ne bu ñu retourné waatee ci conséquence li mu bind mm. décision liñ ci bind mm. d' accord léegi sax daanaka moom euh, débat boobu sax fi mu ne nii moom béy weenu mbuus ndaxte <laughs> euh, euh, ñu ngi kon dugg nañu nag ndax ci xolu référendum bi foofu tamit nga amee tamit beneen position boo xamante ni bëgg naa tamit nga leeral ko sénégalais ba tey ci coupe de presse nee nga yow ci opposition nga bokk naam waaye wii ngay tey ci référendum bi lii tamit ñi mu jaaxal bari na. waaw jóge ci yow. pourtant le contraire moo waroon jaaxal keneen. ah ci naka. Euh, opposition pouvoir société civile yëpp. c' est des organes pour servir la nation. l' intérêt Sénégal ku ne nee nga moo la tax a jóg. ku ne xam na ne sénégalais yi ñëpp ñoo bokk. ci unanimité wax ne ñoom du ñu bëgg mandat présidentiel nekk cinq ans. man ma bëgg ko man. sénégalais yi bëgg ko voté ko. en 2001 de manière directe. par référendum à 94 pour mu nekk une volonté populaire. opposition bi bëgg ko pouvoir bi même bëgg ko ne conseil bi moo leen bloqué mais loolu lañ bëgg mhm. kon loolu ñëpp am nañ ci unanimité mhm. mais naka lañ bëggee wàññi mandat président bi te mandat bi disposition boobu mënuñu ko changer que par la voie référendaire mënul jaar fenn fi ci référendum mhm. léegi président proposé ab référendum pour wàññi ko nga ne man duma ko wote pour quelle raison euh, ça dire que ça dire que ban argument lañ am lan ça dire lan lañ bëgg ñoom ñu bëgg président wàññi ko non. ma mm. bëgg ko population bëgg ko. Mm-hmm. pouvoir bëgg ko président te mënuñu ko wàññi loolu par référendum président proposé ko nga rejeté ko. Mm-hmm. pour une seule raison parce que da nga bëgg a sanctionner Macky Sall. Mm-hmm. politiquement parce que nee nga dafa jëloon benn engagement engagement boobu respecté wu ko mais boo rejeté le référendum woote non. parce que da nga bëgg a Sall. mais boo sanctionner Macky Sall ba pare léegi volonté populaire. de réduction du mandat du 7 à 5 ans volonté boobu noo koy def est-ce que da ngay organiser waa référendum parce que mënuñ ko changer ci beneen yoon bu nekkul voie référendaire léegi nan ngay def volonté populaire boobu nan ngay def bëgg-bëggu askan boobu. mais sa wii bi yow foo ko teg sa wii bi da nga ko teg ci ne da ànd ci li président Macky Sall wax. wala réforme hmm. toutes les autres questions bi c'est des questions secondaires. Hmm. benn question moo ci nekk question principale mooy réduction du mandat. waaw boobu na ci. non. réduction du mandat en en cours moo ci génn. Ah. mais réduction du mandat. en général mu ngi ci. moo ci nekk te mooy point bi ci ëpp solo. Mm. léegi mandat boobu ñu war a wàññi. mënuñ ko wàññi du par passer par. référendum. pour voter oui. Mm. pour que mu jàll. Mm. donc pourquoi voter non. mais mais mais aussi euh, euh, euh, pourquoi pourquoi pourquoi tamit yow sëñ Modou Boussa Dieng nga réaffirmer. sa appartenance euh, ci opposition bi opposition euh, bi jaar ni yow nga bëgg a jaar gauche ci euh, ci ne dañoo bëgg a sanctionner président Macky Sall tey opposition nga nekk yow ko normalement opposition kay son propre mooy ŋàññu nguur gi dafa am lu ma gënal Macky Sall gënam opposition muy le peuple sénégalais dama ne ah. bu dee dañu bëgg a sanctionner Macky Sall nañ dem élection législative boobu makki Sall moo ko moom mm. boo ko sanctionné da ngay sanctionné Macky Sall kese wala parti am ay alliés mais boo sanctionné référendum bii oui ou non. nga wote noo pour sanctionner le référendum. après suñ bëgg-bëgg bi ñu amoon. ngir wàññi mandat bi noo koy def. ak kañ nga koy def ak ci noo koy defee. parce que mënu ko wàññi ludul mu jaaree. par voie référendaire mais xam nga man la laa man sa argumentaire man man man su ma sañoon euh, euh, ni nga ko ni ni nga ko leeree nii nii tey da da ngay da ngay na yow li tax ngay vote oui ba mooy. la ñu la ñu le président Macky Sall indi euh, euh, euh, maintenir réduction mandat bi cinq ans. mais c'est très clair nee naa leen. man su may wotee je vote pour la réduction di mandat qui m'intéresse. moo tax ngay voté oui. seul te et puis c'est le seul point important. Mm-hmm. dans ces réformes. kon yéen important ay lan la c'est des points secondaires. waaw na nit ñi nag ku ne wax lu la neex. Mm-hmm. naan ay góor jigéen ak yooyu yëpp amu ci. c'est mm-hmm. pas vrai. gis nga nit day honnête. je suis dans l'opposition mais j'aime pas une opposition ivre man dama bëgg lucidité dama ko bëgg ci pouvoir de même que l'opposition mënoo ne lii nga bëgg lii lépp sénégalais yi bëgg mais duma ma ko def ndax damay sanctionner diw rien que sanctionner diw te diw moom nga amaat beneen opportunité beneen occasion meilleur boo xam ne si boo ko sanctionné moom rek lay concerné nga ne non du ma xaar boobu te boobu c'est dans une seule année muy 2017 bàyyi peuple bi ñu am seen réduction du mandat. Mm. mais su fekkee ne yow tey da ne non xooluma bëgg bu askan wi damay mettre leur volonté à l'eau l'essentiel que change Macky Sall politiquement. Mm. donc je désolé mënuma bokk ci loolu. Mm. man bëgg bëggu askan bi moo ma gënal opposition bi moo ma gënal Macky principe bi Macky Sall am pour wàññi ne dafa bëgg a wàññi. man boobu laa am. ñoom nee boobu lañ am. Mm-hmm. kon pourquoi ñu war a faire parce que Macky Sall lañu bëgg sanctionner mais kon donc il montre le peuple que c'est des agitations politico-politiciennes. Mm-hmm. di euh, ba tey euh, sëñ bi su ma déggee euh, front du non beeg mi nga xam ne mooy ñoom ay ñaani ba ñaak ñoom ñoom Y'en a ak ñoom waa PDS ak ñoomin seen ak et cetera et cetera et cetera ñooñu ñooñu ñëpp ni nga ko waxee a ah, ah, xam nga man sa français man man sa français rek moo may moo may daaneel nee nga dañoo ivre maanaam li ñuy xamuñu ko. waxuma ñoom dañu ivre de dama ne je suis dans l' wante bëgguma opposition ivre man dama bëgg li ci lépp lu mën a doon pouvoir comme euh, opposition mm. il n' pas valable mm-hmm. que yow nga ne yow danga bëgg réduction mandat bi Macky Sall appui sax moo la metti mm-hmm. ba nga koy coow ne te réduction mandat bi de manière générale mënul jaadu voie référendaire mm. président proposé ko pour que ñu voté ko nga ne non doo ko voté après yow boo ko sanctionné ba noppi ba daaneel Macky Sall ba def li nga bëgg lépp mm-hmm. volonté populaire bi noo koy def mm. noo koy def sa veut dire kon question d'élection du mandat di boo ça va tomber en l'eau mm-hmm. léegi kon nga xañ nit ñi liñ bëgg mm-hmm. parce que yow bëgg nga Macky Sall jóge fii je suis li ma wax suñu très constant. te dama ne la tout intellectuel valable. dina xam ne li ma wax mooy dëgg. mais nag euh, euh, nee nga tout intellectuel valable mais xam nga ne bëri na ñoo xam ne sëñ Modou Bousso Dieng nii dëgg-dëgg euh, jàdd na fi ñu toll nii viré waat nga. masalan ah mooy. ah viré waat nga mooy yow président Macky Sall dëgg-dëgg quatre ans yi fi yi fi defagum. Euh, dafa ma ne yow euh, euh, da ngaa sopp dafa est-ce nekkoo ci mbay mi sax danga nga da ngaa soppaliku nekk nekk baykatu kaani ak ak baykatu poobar ndax li nga li nga doon dëbb di ko yëkkati di ko di ko jal wax dëgg fa yàlla des na ci xel yi léegi boo xëyee suba nag nii di ko di nga xaw a mel ne ku koy ku koy ku koy bër noonu xam nga ku koy ku koy utal ay excuse di ko dérouleel tapis rouge ñaan sëñ bi sëñ bi nag euh, euh, euh, jàdd na dama ne la bëru ma Macky Sall dañu daje ci benn objectif te objectif boobu doon na ma neex trop ñun ñëpp ñu bokk ci parce que ñoom ñëpp ñeneen ñoo ko bokk muy réduction du mandat. Mhm. c'est ça qui explique suñu convergence. Mhm. foofu Macky Sall maa ko fa njëkk. Mhm. moom fa ma fekk. ou même opposition bii. dañu mas a wax ne foofu lañ ne kon lan moo leen fa war a jëlee du dul seul deux ans yi Macky Sall ne du ne du ko bokk du ci mandat en cours bi mm. moo war tax ñu sanctionné volonté populaire bi nga xam ne si mm. moo moo indi référendum bi mm. moom la ñëpp doon wax booba léegi pour stabiliser ces cette euh, institution présidentielle que mu nekk cinq ans pour toujours amul benn raison valable mais yow neexaloon président Macky dinaa ci wax mm-hmm. xam nga sénégalais yi lu ñu xamul Sénégalais yi lu ñu xamul. nit nga nekk opposant bis ñëw nga wax ci moom lu rafet. pour ñoom man dama opposé euh, soxna Aïssatou Diop Fall. toujours dama war a wax ci moom lu ñaaw. bis ñëw na wax naa ci moom lu rafet. ñu ne xaalis moo fa jaar dañ la ah, te gis nga gis nga ku am courage wax ku am courage wax ne baaxul. Mm. war nga am ngoru bis ne eh, wax ne baax na. Mm-hmm. man loolu laa xam de mm-hmm. Macky Sall su fekkee ne daal Macky Sall daf ma fay. ci euh, voté li population sénégalaise bi bëgg. na ma ko yónnee. je suis prêt <laughs> non oui te loolu du ma ci reculer du ma ci reculer virgule. y a une un autre groupe. soi-disant religieux. Mhm. nee ñoom parce que dafa am ay point góor jigéen ak. ah soi-disant religieux nga wax. non parce que ci question bi laa sujet sujet gu nit ñi. parce que question boobu ça n'a absolument rien à voir avec la religion man ajuma Touba laa démb laa ñëw ah. Mm-hmm. ajuma Touba jullee mais fukki juma ak juróom-ñett don bi ma jullee. dañ ci xutba ñu ci baree bari ne parce que question bi bu ñu ko wootee parce que dafa am góor jigéen erreur la. Mm-hmm. amu ci góor jigéen nag baal ma ci baat bi ñu koy répété sax. Mm-hmm. du lu ñuy wax du lu ñuy définir ci constitution. constitution aborde. al xuttul kubra ce qu'on appelle les grands axes les grands principes mais ay yooyoog yi ci des c'est des mais mais comme opposition ni ñu meree si ne couleur rose bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wax euh, dafa couleur rose moo war a nekk ci wii bi xam ci noo ba jëf ju bon du couleur de ah jëf ju bon lan la du couleur ah, c'est des faits constants mhm. du couleur du jour du milieu mhm. donc euh, mooy li la wax rek argumentation valable ñëw fii lu passé argumentation politicienne doon na ma neex trop tey ma mbokki opposition bi tey ñu ne Macky dafa wax waxeet parce que dane woon dafa bëggoon dane woon chaque année dina jël cent mille personnes emploi mm-hmm. léegi cinq pour cinq cent mille loolu waxatuñ lu ci jëm mm-hmm. dafa wax waxeet ñu manifester pour que nit ñi am emploi. kon pour yow dafa wax ça aurait une opposition objective. Mm-hmm. su fekkoon dañ ne président Sall dafa jëloon engagement doo ci taabal yi ne mënul accepter carburant bi di jaar Sénégal di jóge Sénégal di dem Mali te gën a yombe Mali. Mm-hmm. ñu nekkoon nañ manifester pour carburant suñu mbokk jigéen yi jël oto yi bii dafa cher. Mm-hmm. ainsi de suite. ma xam ne kon ñii ñi ngi xeex pour le peuple. mais su fekkee ne seuls deux ans Macky Sall. moo leen metti de 17 à moo tax ñu bëgg a wër Sénégal je suis désolé. kon yow foofu wax wax amu amu fa. non non wax waxet bu su fa amee it am na fa feneen yu bëree bëree bari kon. Mhm. te yow te bii rek. ci lañ bëgg a xam naa la nga bëgg a wax c'est mon problème bi topp nag mooy je répète que gis nga nit ki du saabu da nga ko wax dara. mu mhm. baax ci moom rek. daf la fay wala yeneen. kon Macky Sall mosul amee dara yow. mas Macky Sall ci may ma la dëkk. Ah. ci may ma la dëkk bi ma gënee tiire ci moom. Mhm. bi muy soo a ñëw chaque année buy jox mouvement religieux yi tabaski wala yi daf ma ciy boole. ay ñaata nga daan am yow. bon xam nga jarul ko wax ci télé. mais xam amul solo. Hmm. mais bii nii fay na la bii ci non bii. ci ci wii bi fayu la ci dara yónneewu la dara. yegseegul bu ñëwee ma jël. ah di nga jël. yegse mais volonté askan bii ku ma ci fay du ma ko gëmee <laughs> boobu xoolal man lu may wax rek soxna si ci suma lu ma gëm laay dox. ci laa hmm. nekk Macky Sall c'est mon ami. ça je l'assume. Hmm. même même même ma ko doon yàq sa xarit la woon. mais ma xarit la depuis 2008 dama lay wax leen. nga sànni xeer yu métti yi nga doon wax yu fort yu fort rëy yi nga doon wax. parce que am na loo leen comprendre lul. j'aime pas insister sur Macky Sall il n'est pas important sous mes c'est le peuple plutôt. am na lu am solo lu euh, rôle yi Chacha Mandela wax mooy Nelson Mandela. bu ñu ko masaan laaj ci Frédéric euh, de Klerk. Salan la mu ne c'est mon ami et adversaire. le Sénégalais ne peut pas comprendre ni nekk sa xarit nekk sa adversaire Macky Sall c'est mon ami adversaire mm-hmm. Macky Sall c'est mon adversaire mm-hmm. bu ñu ko doon sanctionné tey 2017 maay jiitu mais nag buñ sanctionné wàllu peuple bi ci liñ bëgg. waaw loolu laa ko loolu loolu laa lànk. loolu defe naa leer na léegi léegi moom xam nañu ne bu waxee yow. voilà li ngay waxee mooy si beneen côté ba. mais mais mais est-ce que. toute autre argumentation. Ah. toute autre considération est irrecevable. venant de qui que ce soit nag. Ah, ku ku mu mën a doon théorie yi moom mënu fi nekk lii rek moo fi nekk lu li fi nekk mooy li dëgg mais mais mais est-ce que ànd nga ak euh, ñi bëri ñi nga xam ñi nga ñi quand même euh, euh, li ñu jàpp ne gaspillage ci organisation même référendum bi Euh, euh, ci milliards yi ñu fay dugal euh, gis nga camp bu ne la muy dugal ci weccet ak organisation bi rek rek milliards ya fa dugg ak i tamit ñi ñi nga xam ne jàpp ne xaalis bu bëri boobu yëpp ci ci ci ci campagne référendum benn campagne une semaine ak yooyu est-ce que référendum bi jaroon na ko ci ci ci ci anam yi nii ak yàq bi ñu fa yàq. si. si bien sûr. le fait que Sénégalais yi bëgg ñu wàññi mandat bi. waaw jaroon na ko c'est non pas jar na ko. Mm-hmm. c'est que cette disposition a a été verrouillée. Mm-hmm. par le référendum de 2001. Mm-hmm. ne peut être modifié que par la voie référendaire. bañ ko bëggee rek donc c'est le peuple sénégalais qui impose un référendum. faut être logique. mënuñu koo dindi ci neneen. donc kon pourquoi je réclame pourquoi non. d' accord alors euh, euh, pourquoi non boobu euh, euh, yaakaar naa ni euh, ña ca war a tontu moom ña ngi fay doon xaar tontu mais am na tamit ñoo xam ne ci askan wi ndax yow ni ma ko waxee rek kenn dootu la présenté ci mim réew sénégalais yi am na ay questions yoo xam ne Ibou Diouf demoon na ànd ak Jatu Njaay mi ñu ñu dem recueillir question yi ñu la posé bëgg na nga tontu leen xaar ma ma jox la. nga seetaan tontu. waaw man euh, El Hadj Malick Seck. tay bisimilah taalibe Cheikh Mbawar Fall. waaw maa ngi tudd Khadim Niang. maa ngi dëkk parcelle unité 26. Modou Bousso li ma koy laaj moom mooy gis nañ ne temps yële euh, Serigne euh, sëñ Sidi Mokhtar dafa ne woon daal vraiment rafetluwul li nga xamante ne moom mooy wàccinu politicien ci arène politique les marabouts. te gis nañ ne moom daf ci impliqué lool ma bëggoon xam ban relation la am at euh, sëriñ bi at euh, moom lan moo ci position par rapport ak inquiétude bi nga xamante ne moom mooy xalifa euh, bi loolu la wax waaw. bi lim la laaj lim la laaj noonu murit moom lay mooy lan ci tolluwaay dëkk bi ak taxawaay bi ak sunu posté noonu murit sañu maa men ci beneen domaine nag noonu murit rek la ñu wax. murit nag Baay Faal la ci ren man. Baay Faal nag lim lépp lépp lu man doon. li nga xam ne tax taxawaayam mooy tax a yokk tey di ko yokk ëllëg moom laay lay yeeyu sëñ Modou. sëriñ Modou Bousso Dieng bon man xam naa ko dama koy suivre ci actualité bi mais li nga xam ne moom laay moom laa ko bëgg laaj damay gis ne la plupart ci régime yi fii nekk départ bi daf leen di ŋàññi comme quoi que li ñuy def baaxul àndul ak ñoom mais damay gis ba benn instant bi après damay gis mu retourné àndaat ak ñoom gis naa ko ci wàdd gis n début bi mu doon muy attaqué Macky mu mel ni ku bëgg a àndaat bon loolu dama gis ne mu nekk benn genre mu nekk benn incohérence boo xam ni bëgg naa xam daal lan moo tax parce que ñoom dañ nekk ay nit ñoo xam ne ay exemple la war a doon seen kàddu bu tax xasee taxaw fenn rek dañ ko war di maintenir tout nuyu nag euh, may surprise question yi c'est tout à sama collègue bi ci TFM ñu euh, xale yi fekk rek ci muy jënd kafe <laughs> mu posé la question mooy mooy ki la njëkk a laaj tontu bi sëñ Modou Boussa Dieng. kontaan naa ci ñett yëpp ah. c'est des questions pertinentes. ok je commence par kii ne sëñ Sidi Maxtaar dafa aaye politique te maa mhm. de sëñ Sidi Maxtaar aayewul politique nag. Mhm. politique kenn du ko aaye. politique boo daan moom sëñ ko. Mhm. sëñ Sidi Maxtaar dañ ne buñ def activité biir Touba. ci biir Touba waaw. par la sainteté. waaw day defuma ko fa. boobu leer na. yow Dakar ngay tojee. fépp <laughs> ko fay def du ko def na muy bañ. jëlal boobu. Eh. Euh, ki ci des mu ne euh, Baye Fall ak Murit. Ah. boobu comprendre waaw ah, man man mii comprendre ma. Euh, donc. Ah, xam nga la bëgg a foofu waaw man Murit la. Murit mhm. la. su fekkee ne Baye Fall mooy Murit Baye Fall la. Mhm. am na ku ne nag suma par rapport ak suma cohérence ci Abdoulaye Wade. au mhm. début dama ànd dama ko tiire. xeex ak moom 12 ans xëy xëy ànd ak moom. contre Macky Sall. ba contre Macky Sall 4 ans xëy xëy bëgg ànd ak moom. je commence dire que ànd gu ma ak Macky Sall xëy na il a il a commenté l'avenir. Ah. yaa ngi dégg dafa gisaale. Euh, bon xëy na mais damay commencé ci loolu. parce que je ne suis pas dama ko wax tubaab soo ko ci tubaab je ne mm-hmm. xam ne dañ naan lii moo xew rek nga daw topp ci loolu ngir bëgg ko la gis wala ko ànd ak yow. Mm-hmm. man damay xool fi baax ci nit ñi ma dem fa ba noppi wan leen fa. doxañ ko mm-hmm. Abdoulaye Wade. dafa ñëw ñu ne murit la ñëpp ne ko ay wa ma ne ko ma xool ko un an ñu ne non yu fi léegi rax na te buñ politique sëñ Tuubaa te mi ngi rax ñu xeex ak moom xeex ak moom douze ans ba mu des vingt cinq jours ma ne leen je préfère Wade la kii dañ ko fay kii Wade daf ko recevoir jox na ko xaalis bu dul jeex ku ne bindul la neex may leen je vote Wade. mais nag je gagne Touba de Touba mosuma ko partagé. gis nga bi ma gañee Touba avant quatre mois. fu Mbàkke Mbàkke nekkoon bu ma ja jaam laa wala sëriñ ñëw nga ni ma mais yow yow macha allah yow da nga bari xam-xam. wooy Wade mhm. la dëgg la tout ma doon raison. Mhm. que bu ñu njëkkoon wooteel Abdoulaye Wade. Mhm. ñu commencé xeex ak mais xeex ak Macky ci biir. commencé. di génne comportement yoo xam ne suñu kilifa yi diine ci seen suñu bopp ñoom ñu ngi dal ci suñu kaw. Mm-hmm. bari na ci ñun ñoo xam ne ils sont rappelés en ordre. Mm-hmm. discrètement. Mm-hmm. par le calife général. parfois sax du nekk discrètement. may leen eh changer mode d'action s'il le faut l'ennemi bi dina leen pousser pour ngeen am problème ak seen hiérarchie et les grands perdants. man du nekk foofu. dans la vie politique sociale lu mën a doon. Mhm. parfois bu jaree nga changer façon de faire. tu le fais mais en restant mhm. constant. Mhm. c'est important. comprendre nga. du Macky Sall dafa jëm fii nga jëm moo am solo xam nga loo am solo est-ce que yaa ngi des di nekk sentinelle. Touba est-ce que yaa ngi nekk sentinelle diine ji est-ce que yaa ngi nekk disons pour population sénégalaise. donc c'est ça qui explique mes démarches. te ci laa nekk mooy lu constant ci man. yoo xam ne si ëllëg ci si biir. mun naa xëyaat ngeen ne fi ngeen ma leen waxoon ngeen jëm fa. Mm-hmm. tourné naa. Mm-hmm. maa ngi côté gauche. Mm-hmm. parce que fii la njëriñ li nekk. donc il faut être un nga ba ma la dégloo euh, euh, lii nga lii nga yëkkati woon comme commentaire teg ko ci kaw euh, président Macky Sall nee nga président Macky Sall il est pire que que que yaa ko fi waxoon rëccu woo li nga wax nii. mais ci sëriñ si. Mm. mais Wade est dix mille fois meilleur que Wade donc ak Macky. Mm. rëccu bokkul ci suma bokkul ci suma logique. simplement nag. Mm-hmm. su ñuy wax benn ensemble. waaw il faut que ñu jël évolution bi. waaw xool fi mu ba fi mu agsi dëgg la gis nga même alxuraan. Mm-hmm. day xëy ne. Mm-hmm. aayewul sàngara mhm. mais ku koy naan bul julli mhm. jamono ji ngay julli bu ko naan mhm. dem ba si yàgg mu ne non daf ko aaye complètement dem ba si yàgg mu ne ku bu kenn takk ku mas njaalo kurul ku mas njaalu ne moom dem ba ci sàgg mu dindi disposition boobu kooku parce que évolution 23 ans yi mu am moo tax soo xoolee wadd ak tey 2000 presque 16 ans il faut mu am évolution mënoo xëy saa xëyee jël rajo ak télé la bonne suuf mhm. ce n'est pas ci évolution boobu mais ku constant ku nekk soo xoolee sama démarche xam ne c'est un homme cohérent et constant mais quelle que soit la constance il faut être responsable mm, devant la réalité devant la devant la réalité mm-hmm. fi essayer contrer la réalité mm-hmm. se concentré parce que tu risques d'être disparaître. Mmh. d' accord euh, euh, euh, ba tey ci ci lancé boobu boo gisee li nga xam ne moo fi nekk actualité concernant le parti démocrate sénégalais mooy quand même avocat état bi ña dem ba ca France di jéebaane Karim Wade ak yi ni mel teg ci ko table bi li li ñu confisque ko confisqueel ne dafa randal ba fa rawale lu toll ci 21. cent vingt sept euh, millions d' euros ay milliards yoo xamante ne nii. onze douze milliards ah donc yow euh, euh, démarche boobu ak la mu wunnu yow ban jàngat nga ci am. je suis atteint. Mmh. Karim est mon ami j'ai une pensée amicale ci moom toujours. Mmh. je l'ai toujours défendu juróom-ñett fukki émission ñett. laa ko défendre. avant ñu koy jàpp bi ñu ko jàppee. maa ngi fàttaliku bés. benn émission ma jàlloon daf ma woo ci guddi si booba jàppaguñ ko. Hmm. ne ma sëñ Modou vous avez vu Sénégal. Hmm. ba tey ni ma toog nii maa ngi koy défendre. je ne suis pas d' accord ci arrestation. d' ci condamnation d' ci détention. du ma ci mës a d' accord ba àddina tukki. parce que pour yow jaru ko. non non seulement que jaru ko mais gisuma culpabilité bu ma ko mën a chargé. dama mës a gëm ne rek c' est des affaires politiques qui toujours en cours. te ñaan naa président du ma ko sax ñaan président Sall parce que seqaguñu ko. président Sall il est dans man tamit maa ngi gis ma. dëgg la mais daal jàpp naa ne dinañ ko bàyyi yaakaar naa ko. Mhm. te it rien que pour jàmmi Sénégal war nañ ko bàyyi. Mhm. rien que pour lépp dajaloo waat dinañ ko bàyyi te it je pense que tout le monde est conscient de disons de mhm. cela. waaw ah, d' mais mais mais yaa ngi naan yaa président Macky Sall sequ gu leen leen nii sequ leen naa nga mais est ce que foog nga ne yow euh, yaa président Macky Sall da ngeen mën a seq lu mel noonu ndaxte dëgg-dëgg euh, euh, xëy na 4 ans. yi fi jàll nga xam ne saa boo xëyee suba dëbb sa kaani dëbb sa poobar tuuf euh, euh, euh, ko ko est-ce que loolu dëgg dëgg toxuñu yi mënoon toxuñu ndax loolu dina tax ba présent Macky Sall sawar naanandoo kafe yow. c'est un grand homme. oui. Hmm. oui affirmatif. foog nga ne dina fàtte xeer yi nga doon sànni yëpp ñoo toog ak yow invité la xam na ne xam na xeer yu objectif la <laughs> xoolal. président Sall man xaw ma xeer nu mu objectifé. dama ne la bu mu gënee saf. Hmm. rek. musul ñàkk buy def li muy defal ñëpp mu boole ma ci te musul ma changé position man tamit ci loolu te changé wu ma ci ba tey te du ma ci changé mais nag j'apprécie sa position boobu dama sama président Macky Sall baal la xeer yi nga doon sànni <laughs> mu jéggal la <laughs> mais mais mais mais sëñ bi euh, naa ni bi bi mooy nekk euh, euh, daanaka laaj bu mujj bi sa sa sa xarit Cissé Lo juboo ngeen léegi xanaa wax naa toujours ne su ma waxee ci nit ñu baax ñoo pare daal du ma wax ci keneen man daal j'ai parlé l'essentiel j'ai abordé ce qui se passe pare naa ci j'ai fait mes aux autres dégg nga wax naa ci ñu baax ñoo pare. wax ci ñu baax ñi ba pare léegi sama laaj si sa rek si sa bokk ci wala. amul solo ci sama. ah si biir rànkuñee nga di. non rànkuñee wu gisuma ci moom domba tànk bu mu takk. Hmm. wala kilifteef ci juddu. wala ci jëf lu tax ma war a commenter ci moom du actualité xam nga su ko nekkoon ma jaar ci kawam jàll du du loolu du sama problème mais du ko pourquoi ma koy indil jëlee ma ko fële ci indil génneel ma ma ko indil man defal ma ko réalité déedéet su nekkee actualité nga wax ci amul judd ma tànk bu ko may ma wax ci deful deful. Euh, grande action politique. ah mais mais bu mu def nii mais bu mu jiw mu am nag boobu boobu rafetlu woo ko. Euh, président CEDEAO euh, assemblée CEDEAO ah boobu na nag. Touba fort na mala bu dëkk Touba sax. su amee ma tànk ma kontaan ci waxuma laa nit Touba la bëgg. Mm. sëñ Touba bu ma sànni ci xaal soo bëggee mu ñëwaat ci ñun dañ ko naan dañuy dem ba ci wetam ñu tudd turu Touba. Mm-hmm. Touba bëgg ku dëkk Touba rek yéene naa la nga am kiti àdduna. Mhm. boobu aw ma ci problème. Mhm. dëgg la alors euh, <laughs> jeex na. waaw <laughs> mais bi sëñ bi sa bi euh, wax nga euh, loo xam ne sax du du waru kenn alxuraan moom macha allah ci lañ la danga ko nàmp waaw si seew la bokk sa yëf la mais wax naa ba wax naa la dama man dina seetaan moo ma gën a invité la te man di la seetaan émission français moo ma dàqal euh, kenn euh, euh, li nga def ci olof kenn rek laa gis ne chaque fois sama ma koy nuyu au passage nuyu groupe ba yëpp nag Sidy Lamine Niass saa yu may déglu moom nga may fàttali ndax yéen am leen complexe ci damm yax sa digganteeg kàllaama français nu mu demee. jàng naa ko bu baax. Hmm. am naa ci master 1 en communication. Hmm. jàng naa ko bu baax. Euh, bi ñuy xam nag maa yow yàgg nañ def émission. ça fait maintenant huit ans. boobu damay soo commencé nag. Mm-hmm. damay damm yàq <laughs> forcément. mais effectivement def na léegi avoué léegi tane na. Mm-hmm. léegi maag ñëpp yam maa ngi koy wax de. émission bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo Sénégal seetaan. maa ngi lay gërëm di la sant <coughs> liggéey bu rafet ngay def. Mm, tout le monde vous apprécie. merci. yal na la ci yàlla jàppale. amiin amiin kontaan naa trop ñëwaat ci sa émission. bu mel nii dëjër mm-hmm. nga fi nag. voilà <laughs> ba ñu doog a door. <laughs> mais sant yàlla euh, saa bu ñu ko defee rek di am solo ci ñi koy seetaan. dëgg la donc maa ngi lay ñaanal nga nga nga am jàmm. ma waxaat suma mbokk opposition yi pour jeexal. Mm-hmm. bu ñu amatee nit. Mm-hmm. gënuñu nit bi ci juddu. ëpp ñu ko xam-xam ndax fu ñu ko jàng. dañ koy téye. mais gis nga bu ñu nekkee xeeb nit ñi. pouvoir bañ a xeeb kenn. Mhm. nit ñi dañuy dem ci pouvoir moo leen gën dem ci opposition. sëñ Mbaal maa bëgg <laughs> sëñ Modou Bousso Dieng la <laughs> <laughs> la woon ñu am mbégte euh, comme ni ma ko waxee man moom ci fan ci fanam yi laa bokk. donc dëgg-dëgg euh, su ma ko rek day fekk de euh, dafa dafa dafa jot dëggantaan mais di ko seetaan sama yeneen naataang ndax nekk spectatrice moo ma gënal nekk actrice ci yu yu ni mel ci côté moom rek laa xam ne daal moom Sidy Lamine Niass moom. say waay waaw non non ma du ma du ma la def fu may déggee seen indi foog ma taxaw. seetaan seetaan seetaan naa ndaxte euh, da ngeen bokk ci vraiment ñi may faj. <laughs> donc ñu lay jaajëfal chaque fois bu ñu toogee ak yow nag ci yi ni mel euh, dañ dañ si am mbégte euh, yàgg nañu def émission effectivement ba ngay doog a door. Mm. ça fait huit ans léegi nag ni ma évolué yow itamit sa sa bos a gën a gaaw sama bos. <laughs> <laughs> ñu lay ñaaral tamit si yoon bi nga taxaw mu nekk yiw ak lépp loo xam ne xeetu ngëneel la mu wàcc si yow wàccaale tamit ci. bërëb bi ñu nekk di ah. place de souvenir africain nga ah, xam ne euh, lu am solo la euh, euh, ci réew mi ak li ko wër lu am solo la tamit ci dëgg-dëgg taxawaay bi nga xam ne bërëb yi ni mel ci wàllu njëriñ ak ñoomin seen war nañ ko am surtout nag xale yi xale yu ndaw yi tout tànk yi ñu war a jàng war a xam dëgg-dëgg histoire Afrique ma ci félicité nag sama doomu ndey Adja Siba mu jiite lii mm-hmm. moom ak collaborateur am ñi ma xam ak ñi ma ñoom ñëpp ma leen nuyu ndaxte lii rek musée bii rek euh, wane na lu am solo ndaxte ñu ngi gis hmm. portrait euh, ay femmes yoo xam ne kenn ku ne euh, jàmbaar nga ci wàll bi nga nekk te sonn nga bala ngaa toog fi nga xam ne tey ji mooy mooy sa place lii yëpp nag mooy misaal rek ñun jigéen ñi li nga xam ne moom la ñu dund au quotidien nag quel que sunu catégorie social quel que tamit fi nga xam ne moom la yàlla sédd ci wàllu ci waar wi en tout cas ay jigéenu jàmbaar rek ñoo nekk Sénégal maa ngi ni jàkkaarloo ak kenn sama doom ji Catou Ndiaye jigéen ñi léegi ñu ngi ci caméra yi gis nga ko <laughs> moom bi sama lépp sama doom la ñu ngi ci caméra yi ñu ngi ci montage yi ñu ngi ci taxi yi mm. ñu ngi bay ñu ngi lépp daal loo xam ne nii góor bi nga koy def daal ñu ngi ci jéem ba bay suñu waar euh, may may gërëm nag euh, bu baax sama xale yi may àndal euh, Pape yaa ngi noonu tey gis naa liggéey bi bi nga def ah ma yi tamit ah, sama rakk bopp Ibou Diouf léegi yaa ngi bokk ci biir équipe bi euh, mama arrête sama doom jooju yaram mi dafa sutante ñu koy fóon di ko yónnee pom ak euh, banaana nag euh, Mariam moo ko wutu ñu koy nuyu moom itamit dëkk bienvenue Jules fàttewuñu la mbaamul ku ma fàtte bëgguma fàtte kenn ak nag ca tele ba rek ci bés bi maa ngi nuyu groupe Futurs Médias boog jigéen ña fa nekk ñëpp di fa xëy di fa daan seen doole ñoom itamit tey bëgguñu benn yoon góoñu nañu accam njëkk yi sama njëkk yi ñoom itamit ah du ma fàtte Marème du ma fàtte maam Sini du ma fàtte du ma fàtte maam Koum ak sama jarbaatu boobu nag euh, sama jarbaatu bopp laali ak nag sama sama goro maman Thioub euh, foofu laa yam ci euh, ci lim yi ak nag soxna sama ñaari libaas yi ñoom sama ay xarit yu borom kër lañu sama ay xarit lañu bu baax a baax a baax képp daal koo xam ne femme nga rek fàttewu ma sama yaay fàttewu ma sama rakk yeeg sama mbokk yëpp jigéen ñëpp daal tey big dédicace laay laay def donc incha allah beneen dimanche. beneen face to face